xam nga vidéo bi ngeen mujjee seetaan mi ngi nekk vidéo bi nga xamante maa ngi wane euh, li nga xamante ni moom mooy trophée yi vidéo trophée yooyu ngeen gis bi ma koy dugal moom laa leen di wan nii su ma koy dugal ko am na vidéo trophée bu ma njëkkoon def même option yooyu laay choisir YouTube defal ma ko ci vidéo bees bi loolu mooy lan mooy maa ngi dugal benn vidéo bu bees tey vidéo bees bi may bi may dugal peut-être am na mës naa wax ci lu mel noonu wala am na vidéo bu mu nuróol ci sama chaîne YouTube ne ma ndax da bëgg utiliser information yi am ci benn vidéo boo xam ne amoon nga ko ba pare def même information yi ci vidéo bi au ngay nekk di répéter di bind même titre même description di bind même tag yi di di ko ci même playlist bi di même langue et cetera et cetera YouTube ne la da ngay xool vidéo boo xam ni li nga bëgg a def ci bii defoon nga ci benn nga indi boobu yooyu information yi amoon ci vidéo yëpp ma defal ko ci vidéo bees bi loolu nag day yombal liggéey léegi vidéo bi mooy war a télécharger mooy vidéo trophée yi. bu ma koy télécharger defoon naa beneen vidéo bu yàgg ci trophée yi di wax conditions yi kon lu may def damay choisir même information yooyu YouTube defal ma yëpp ci biir léegi nag su amee après man lu ma ci bëgg dindi ma ñëwaat bu nekkee en ligne ba pare ma ñëwaat am ay lien yu ma si yu wàññi ak yu ma si yokk kese voilà mais du ma nekk di choisir playlist du ma dugal tag du ma dugal titre du ma dugal description du ma defal dara lépp YouTube daf ma koy defal parce que daf daf na jox na ma option ma choisir loolu loolu lu ñu koy defee da ngay cliquer euh, di télécharger comme ñu cliquer fii créer importer des vidéos cliquer fii dem ci vidéo bi ñu war a importer si biir ordinateur bi vidéo bii la léegi vidéo baa ngi commencé chargé wu automatiquement vidéo commencé chargé wu di nga titre bi ñu def vidéo bi ci suñu ordinateur moo nekk nii description par défaut bi ñu amoon et cetera YouTube lii lay fi yokk lu bees loo xam ne amu fi woon muy lan réutiliser les détails d'une autre vidéo utiliser détails yëpp nga nar a def fii utiliser boo xam ne amoon na fi ñu ne ko waaw loolu lañu bëgg a def bu ñu cliquer fii léegi daf lay indil vidéo ji nga yi nga mu def ñooy feeñ fii léegi ñun ban ban yan détail lañ bëgg dugal vidéo bi ñu bëgg dugal feeñul fii bu feeñul fii lu ñuy def dangay ngay dem wëri ko waaw trophée lañ defoon trophée vidéo ñu ci trophée YouTube bi ñu defoon ci trophée YouTube vidéo bi ñu mi ngi nii voilà gis nga vidéo bi ñu defoon ci trophée YouTube moo ngi nii léegi bii lañ bëgg dugal même information voilà gis nga page bi la lay yéen bu leen di page bi nag option yi bu amee loo fi bëgg a loo xam ne bëggoo bokk ci fii nga koy coché par exemple bu dee vidéo bii nga bëgg a dugal euh, bi nga bëggoon dugal tey yeneen tag nga si bëgg a dugg fii da ngay décoché tag yi su ko defee tag yi du ko si boole su dee ci beneen playlist nga ko bëgg a dugal bu bokkul ak playlist bi vidéo bee nekkoon da nga décoché maam yi nga bëggul daal yëpp da ngay décoché yi nga bëgg mun róole ko nga coché ñun par défaut dañuy bàyyi yëpp mu coché parce que yëpp lañ bëgg mun róole rek ñun dafa am ay quelques euh, liens yoo xam rek dañ ko si yokk kon soxlawul ñuy ñuy ñuy def bu mu dugal description nañ bàyyi yëpp par défaut information yëpp lañ soxla ñu def lan réutiliser boo defee réutiliser ji nga chargé na information yi mu nduróog information yi ñu dugaloon yëpp gis nga trois playlist yi ñu ko ajouté woon wii bi loi COPPA bi bu ñëwee fii plus bi wàcc ci suuf gis nga moo clé yi ñu defoon ak yëpp yëpp gis nga yëpp la choisir comme ni ñu ko defoon ci vidéo bi léegi lu ñuy def suivant continuer dem étape monétisation activer monétisation jàll ko def suivant mooy nu ni étape bi nga xamante ni fii lay defee éligibilité annonce yi ñu wàcc ci suuf ne éligible na amul dara lu garaaw lu génn ci vidéo bi envoyé l' évaluation YouTube détecté ko xool ba évaluer ba xam am na lu garaaw nekk ci vidéo wala amul lu garaw su détecté wul dara bàyyi mu jàll ñu def suivant ñu xaar. voilà détecté wul dara ñu def suivant ah. bu ñu defee suivant ah, di nga yii rek nga fi yokk muy ecran de fin wala fiche sponsorisée et cetera voilà li ñu fi yokk ajouter écran de fin écran de fin ñu ajouter écran de fin tam même chose mun nga utiliser vidéo benn écran de fin mu ci beneen vidéo lii moom YouTube def na ko def na ko bu yàgg mun nga ignorer xam nga fii génn dem choisir beneen mais di nga fi importer à partir de la vidéo du ñuy dugal ay ecran de fin suñu bopp. lii nii la YouTube jël def ko fële gën a indi ay facilité parce que yokkoon nañ ko ci écran de fin da ngay indi di nga choisir si benn benn vidéo bu am écran de fin boo xam ne am na ko bi am na ko même écran de fin bi lañ dugal ñu def enregistré jeex na fiche yi mën nañ yokk fiche buñ neexee dinañ yokk fiche parce que trophée YouTube bi euh, waxoon nañ si vidéo bi boo ñëwee ba bërëb sàngam boo ñëwee ba bërëb sàngam rek message bu ruus bi génn voilà mi ngi nii fii la ñuy wax flèche bi voilà fii léegi ñu non non du playlist vidéo la vidéo vidéo ñu tàppe fii trophée trophée trophée waaw mi ngi nii vidéo trophée bi wax nañ ko ko soxla xam nga di nga comme nii damaa wax ni ku soxla kii nu mu tëddee vidéo trophée ñu defoon ndox condition yi dangay seetaan ba dem ci flèche bi génne léegi fii laa réglé fii la flèche bi génne léegi ma teg ko fii comme ça après dina ñëw enregistré defee enregistré def suivant defaat suivant mu demande ñu dañ koy programme wala dañ koy def public léegi wala privé et cetera voilà ñu def ko dañ koy programme suñu vidéo ñu dugal lépp dañ koy programmer si même si jour tay bi lay daw mais dañ koy programmer ban heure jot quinze heures naa ko def 17 euh, heures voilà 17 heures baax na 17 heures 17 heures lañ koy programme mu ndaw 17 heures mu ngi nii 17 heures 0 minute ma définir ko comme première configurer première bi. waaw première bi thème ban thème cinématographique laa koy def euh, durée bi une minute rek doy na voilà daal def enregistré voilà gis nga daal def programmé voilà jeex na léegi ñu xaar voilà léegi suñu video ji nga programmé woon léegi nag damay ñëwaat ci vidéo bi ci boppam léegi ma am information yu ma ci changé voilà ñëwaat ci vidéo bi vidéo bi moo nekk nii ma cliquer crayon bi su ma cliquer crayon bi lan laa war a changer titre bi laa war a changer ak euh, description bi war naa fi def benn lien et cetera ak surtout li nga xam ne mooy miniature ma ajouté ko ci parce que miniature bokkul ci information yi muy ajouté kon lu ñuy def dañ fi ajouté suñu miniature personnalisée bi nga xamante ni defar nañ ko anamu sax miniature personnalisée bi nga xam defar nañ ko euh, miniature personnalisée bi wala ko. téléchargé mi ngi nii voilà bii lañ def miniature personnalisée ñu def enregistré voilà voilà léegi jeex na nii mooy ni nga xamante ni noonu ngay utiliser information yoo xamante am na ci beneen vidéo YouTube defal la ko ci beneen vidéo kon nu ngi leen dox rendez-vous ba vidéo bii di ñëw incha allah rabi jërë ngeen jëf.